asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp moom teew yi moom na trop nag bu baax baax a baax ci marché bi mhm. pour gis ko sa problème la quoi instant moom prix yi dafa seer trop trop trop waaw pour nga gis la problème la quoi lan nga xam naa ca kaw nag xam naa daal ca kaw doon quoi comme gouvernement bi nii ci kaw la yokk quoi mais ñun moom ku ñu gis ko sugal sa problème la quoi mhm. dafa daan toog ay deux semaines ñu gis taal sukur yi taxawaat ci marché bi. ren li ci am mooy consommation yi dafa yokk ba pare te marché bi produit yu bari gisuñu ko te dafa bokk ci war a waral yokkute njëkk mooy rareté produit bi su amul rek day daal di eh, yokk day daal di yokk day daal di cher bu njëkk a nemmeeku mooy suukar si ndax ñi ngi ko doon dégg ba ay trente trente mille trente deux mille ba sax am ñu jën trente cinq mille te loolu li ko waral mooy rupture dafa am. loolu moom nañ ko wax rupture dafa am ci marché bi ñu gros si bu ñu demee euh, usine seen camion yi dafay def plus de 15 jours buñ mën a chargé bu ñu ñëwee Touba yëpp benn benn oto wàcc fi wala ñaari oto ñu koy xëccoo loolu mënut a yomb euh, donc frais supplémentaires yi nga xam ne oto yi dañ koy def bu ñu liggéey dañ koy répercuté ci ci ci produit bi donc loolu moom mooy yokk yóbbu loolu mooy initiative bi donc rupture boobu daal moom loolu ma ko waaw suukar si waaw li ciy lépp lu daal seer na. te suñ sañoon yi wax dëgg yàlla ñu jàppañ xam ne ku woor ba weer ba ngoon jot nga bëgg loo yut sa njaboot wala loo dogoo am na ci ñoo xam ne sax dañ koy jënd di ko jaayante ci sëñ Tuubaa rek tax di dimbali doomam kon danoo bëgg it wax dëgg yàlla commerçant yi comme yàlla dogal na nee nan exportation bi arrêté nañ ko importation bi arrêté nañ ko léegi dañoo bëgg nag lii nga xam ne moo nekk ci dëkk bi leen génne suukar si ndax suukar si am na fi dañ koo denc ñu wàññi ko nag ñoom ñëpp ñu dugal seen loxo ñun de gis ñu 15 000

Euh, produit bi su amul rek donc loolu c'est la loi du marché naturellement prix bi day yokk. prix fan la toll jamono ji. Euh, na un peu parce que ay 29 neuf trente mille foofu lay foofu foofu lay kii. am ci commerçant de temps yu wax ni euh, yu accusé grossiste yi ñu wax ne ñoo denc suukar si. waaw loolu tamit dama japp ne ñàkk xam commerce la ndax nit naka lay engager woo soit auprès des banques wala mu jël xaalisu bopam dem jënd investir ci lu tollé ay camions suuf nga xam c'est des millions. nga jël ko indi ko di ko denc kan moo lay wax suukar day manqué ba nga koy denc ndax yow boo dencee man su amee jaay yow kan kañ ngay. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.